non xam nga comme ni ma leen wax rek dafa am yenn yenn assistance yoo xam ne boo koy assister nit euh, euh, boo boo ko ëlbatee dafay mbiru ñaawal ndax man man du ma ñaawalaate samay dëkkandoo duma ma ñaawalaate ñu néew doole du ma dëgg si tànk ñi néew doole parce que xam ngeen ne boo toogee ba mbënd ba nekk mois de septembre nga bëgg a secourir doomi aadama si dëkk bi xam nga ay théâtre la donc moo tax instant bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk collectivité locale bi ñu nekk ñu dénk leen dëkk bi ñu yor commune bi waroon nañu am beneen taxawaay bu ñu war a taxawaay ba taxawaay li nga xamante ne mën nañu taxawaay ci dëkk bi ndax ñu fi nekk Kaolack la ñu dëkk kenn du leen wax fan fan la fan la Bongre nekk kenn du leen wax fan la Ngaan nekk xam nañ yoonu Ngaan ndax ña ngi fay dem ngénte bu bëggee soxla ña ngi fay dem xam nañ fi daan taa tuxuwul bu ñu toogee ba bu ñëw ministre bi ñëw fii ñu ànd ak moom gars yi di kër k yi def loolu lépp c'est du théâtre man moo tax mbënd mi li ma ci xam mooy Kaolack jël seen jël seen responsabilité jël seen responsabilité yu mat sëkk ba an ànd après nawet bi ñu xool ban assise nationale la ñuy def parce que dëkk bi kenn duñu ko defaral mais li nga gis li ñu gis fii yëpp c'est du théâtre laa ko jàppee mais mbënd mi yàgg na fi te xam nañ yoon bi muy jaar xam nañ fi fi am problème kenn nekkul loo xam ne yàllaa ko fi indi tey démb démb déedéet yàlla bi mu fi indee yàgg na mais nit ñi defaree suñu saal yi. ñoom ñi bëgg a dagg seen billet avion di jël business class muy neex ñu bañ a bokk buuxante bañ a taxante xam nañ xam nañ li xew donc man si côté mbënd mi Kaolack damay jàpp ne ñi nga xam ne ñoom lañ dénk dëkk bi ci région bi dañuy seetaan waa Kaolack ba pare di leen néewal doole. waa Ngane defa laaj na liggéeyaat donc comme l'espoir de Kaolack est là donc loolu dina ci ñëw parce que man sama soxla soxlaam la te Ngane laaj na defaraat parce que gars yi dañ leen di seetaan dama koy wax à tout moment wax naa ko xale yi. ma ne leen tey soo gisee ñun ñuy sonn ci yéen yéen aussi ñun lépp lu ñu nekk rek da ngeen ci war a nekk te kii c'est un acteur de développement ci suba bi mu ñëwee école bi nekk ko ñoom la xëy woo ma téléphone dama maa ngi tabangoy pour ñu xool naka la ñuy xoolee canalisation yi pour ñu mun ko printer pour ndox mi mun a génn foofu noonu parce que octobre léegi mu jot ñun ngaan gi tey am nañ problème boobu daaw moo ko réglé moo rek réglé ndox bi ñu évacué ko ba kon tey su taxawee gis mbedd bi comme jaar na fi am nañ chance yu loolu Amener une chance donc dana ci contribuer merci beaucoup